va bien ça va bien ça va bismillah merci sonn leen ci yoon bi ça va bien merci pour l'accueil bi merci bismillah êtes comme chez vous merci ça va bien je vous sers à boire merci waaw je jël yaa jël best best ginaar gi baax na ci kër gi ne saa yoo ko dàqee wax ci say soxla sëkk. seen la manque. ah masal. na ko gisee. naturel. Ah. ak nen euh, gis nga nag mooy bes. très bien donc mooy ki ñu fas yéene gunge ci kër sama deuxième saison. très bien. Ah. donc euh, am na mangue am na ananas am na cocktail. très bien et on sent bien la on sent bien la mangue. gis nga de pour merci ginaar gi baax na ci kër gi asalaamaaleykum mbokk téléspectateur u Mourchid TV dal leen jàmm ci seen émission kër sama deuxième saison comme ni leen ko waxee bi passé euh, kër sama dafa fas yéene ñëw ak yéen ci lépp li nga xamante ne moo soxal kër boo ko defee dañu waxoon kër kër gi en tant que bâtiment mais aussi kër ci ñi nga xamante ne ñooy dund ci biir kër gi kon mag am na ci wàll xale am na ci wàll góor am na ci wàll jigéen am na ci wàll mu mel ni kon tey suñu thème tey bi dafay dañ ko sédd xale te mooy thème bi ñuy fas yéene waxtaane dafay dellu ci li ñuy tuddee ci nasaraan les l'impact des pratiques éducatives sur les membres de la famille donc mooy jeexital gi nga xamante ne moom la suñu yar am ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu séqal famille bi buñ ko tuddee xale am na ci wàll mag am na ci wàll jëkkër am na si wàll jabar am na si wàll ba ci goro yi sax am nañ ci wàll ndax famille africaine moo yaatoo noonu bu ko defee xam naa ñu fas yéene dalal euh, ci waxtaan bi sunu kan docteur Ibrahim Jiro nekk psychologue docteur Ibrahim asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa mm-hmm. mm-hmm. ko defee xam naa balaa ñuy jàll dañuy wax li tax ñu choisir euh, thème impact pratique éducative ci ci xale yi donc wàllu yar booy xool la ñuy waxtaane mu mel ni dafa nekk loo xamante ne lu universel la lu mondial la maanaam maanaam foo dem ci pénc boo dem ci àdduna bi problème mu yar dafa posé wu donc moo tax tamit ñu fas yéene ko waxtaane mais ñu xam ne tamit yar du du benn recette maanaam du benn boo xamante ni ñëpp a koy bokk c'est-à-dire que yar bu nekk problème bu nekk dafa am solution boo xamante ne moom lañ koy moom lañ koy résoudre beneen bi mooy wàllu xale la ñuy wax te dañu gis ni ñun léegi njaboot yi xëy na dinañ ci ñëw ci fu gën a yaatu euh, lenn constaté nañ ko mooy xale dañ ko seddul noonu ci biir kër gi soit dañ koo joxul temps bu doy soit dañ ko dul déglu bu baax wala tamit duñ ko bàyyi mu wax ci kër gi mu mel ni des fois sax dañuy jaawaatle xëy na yar bi ñu recevoir ñun parents yi des fois par force dañ koy bëgg di forcer suñuy doom te loolu tam bu ñu ko xoolee dafay am ay jeexital ci nit ki ëllëg waxuma la ba muy nekk xale mais bu demee ba màgg sax bu demee ba war a sanc kër dafay yar boobu dafay am jeexital ci moom mu mel ni yar boobu la ñu fas yéene waxtaane incha allah docteur Ibrahim Giro bu ko defee xëy na suñu laaj bu njëkk dafay dellu comme yow sa xam-xam dafa màcc ci psychologie mhm. ñu wax téléspectateurs yi lan mooy psychologue mhm. métier psychologue ci lan lay dellu jërëjëf soxna Alimatu euh, laaj bu am solo parce que Sénégal nekk na dëkk boo xamante ni euh, psychologue yi dañ fi gën a bëri à l'heure actuelle te lim boobu dootul wàññeeku parce que mhm. Sénégal moo euh, yaatu noonu Sénégal moo nekk également un pays d'ouverture gis nañ ne tourisme bi dina gën a yaatu loolu c'était prévision même du mhm. gouvernement donc na dëkk boo xamante ne dafay gën a euh, accueillir mhm. lépp li nga xamante ne dina xew France nañ gis ni mhm. boo boo deful nank dina xew Sénégal aussi donc dafay laaj dëkk bi mu am un nombre de psychologues yoo xamante ni c'est en quantité mais surtout qualité bi euh, liggéey psychologue mooy liggéey boo xamante ni pour man surtout sama spécialisation mooy ñuy euh, gëstu ci nan la Euh, yuuru xale di màgge di gëstu également ci nan la yarin bi di amee jeexital ci màggaayu xale bi mais également lu ñu wooyee de façon générale développement familial ak mm-hmm. développement xale bi mooy lépp li nga xamante ni euh, dafay am effet ci doomu aadama mooy psychologie doomu aadama maanaam nan la nit ki di Euh, comporte yooyu dañuy mhm. loolu dina euh, laal jikko yi dina laal également li nga xam moom la ñu wooyee attitude mhm. parce que attitude mooy luy luy lu lay lu lay maajloo suñ ko mën a wax noonu mhm. donc lépp li nga xamante ne daf lay waajal loolu dina intéressé psychologie donc dafa nekk domaine boo xamante ne mën nañ ko tënk ci benn wax kese dafa dafa yaatu moo tax moom ay spécialisation donc man sama euh, spécialisation nekk na si nan la tout tànk yi ci maggee ak ban jeexital la yar beeg yarin bi am si seen avenir kon mu mel ni xam naa li olof naan bunt bu baax ba la ñu fëgg comme xale la ñu fas yéene waxtaane kon ñu am koo xamante ni spécialité am donte di psychologie yaatu na mais ci wàllu xale la dellu kon mu mel ni xëy na li ñuy njëkk a laajaat tamit wàllu xale kan mooy xale kañ lay nekk xale ban âge ba ban âge bu ko defee nga gën a dugg ci biir les cycles de développement wu xale bi donc màggaayu xale bi ci nan la koy defee laaj bu am solo <coughs> euh, pour tontu ko dañuy jël approche boo jëlee approche droit dañuy jàpp ni xale mooy képp ki nga xamante ni am na diggante tous ba dix-huit ans moom mooy moom la ñuy woowee un enfant. Mm-hmm. mooy personne age de zéro à dix huit ans. Mm-hmm. moom mooy xale. Mm-hmm. Euh, mais boo ñëwee si wàllu développement. nga gis nii si période bu ñuy gën a intéressé pour wàllu éducation si nu ñuy war a yar xale yi nu ñu leen war a waajal nu ñu leen war a tàggat. Euh, période zéro à six ans mooy tous ba juróom-benn at. dafay nekk période boo xamante ni moom moo ëpp solo. parce que gis nañ ni lépp li nga xamante ni def nañ ko ci xale bi période boobu. waaw muy ëpp jeexital mooy investissement yu gën a euh, am doole pour que mu mu am lu mu jur suba lu am njëriñ pour xale bi amal askan bi njëriñ amal ay way juróomi njëriñ également donc diggante euh, tous ba juróom benn at boobu dañ koy xoolaat ci diggante zéro deux ans tous ba ñaari at nga jël diggante ñaari at ba ñeenti at mu nekk at beneen cycle diggante ñeenti at ba juróom benn at mu nekk encore beneen cycle mais boo jëlee même ba léegi pour ñu gën a spécialisé wu. diggante zéro euh, tous ba ñaari at bi. dañ koy xaaj encore ci diggante euh, tous ba juróom-benn weer. mais tous ba juróom-benn weer boobu dafay am beneen période encore mooy lépp li nga xamante ni dafay nekk ci grossesse bi. mais bu ñu demee si wàllu grossesse bi dañuy remonté waat encore si li nga xamante ni avant grossesse bi la. Mhm. mooy euh, ñi nga xamante ni ñoom la yàlla boole pour ñu jur xale boobu. mooy lu ñuy woy en français qui épouse qui. Mm-hmm. loolu xam nañ ne ci lislaam am na solo dañu war a tànn suñu yaayu doom mais dañu war a tànn également suñu papay doom mhm. donc gis nga bu ñu waree wax ci yar bi da remonter des presque des siècles wala même des millénaires mhm. parce que faut ñu comprendre ni jikko yi nga xamante moom la ñuy gis tey ci askan bi mhm. mais du tey la tàmbalee ça fait des milliers d'années que jikko yooyu ñoo ngi fi am na jikko yu baax mais saxaan bi également mi ngi fi donc moo tax ba c'est très important laaj boobu ñu xam Euh, bu ñuy wax xale dañuy njëkk a euh, xam ñan ñooy sos xale bi exactement mhm. société bi mhm. mais également ñan ñooy euh, ñan ñooy parents yi donc bu ñu définiree loolu ba pare xam naa mën na nekk beneen beneen beneen débat mhm. si période grossesse bi ñu bëri dañuy umpale ni xale bu nekkee ci biiru yaayam c'est déjà une personne maanaam nit la xaarul ba mu juddu pour nekk nit donc dafay nekk nit boo xamante ne dafay am ay sensation dafay am lu muy yëg ci yaramam mais lu muy yëg noonu mooy exactement loo xamante ne moom la yaay ji di dund. ci période boobu. donc loolu dafay am solo. askan bi yëpp ñu partager information boobu. ñu xool nan ni ñuy jëflante avec les femmes enceintes. Sénégal am na loo xamante ne mi ngi commencé changer. loo xamante ne euh, lu am solo c'est positif. man gis naa ko dans les aéroports boo demee ci aéroports yi. am na ay lignes yoo xamante ne ay voies pour les femmes enceintes la. waaye mooy bu fekkente ne da ngay dem jël avion gis naa ne ñoom dañ leen di dañ leen di beral loxo si je peux parler comme ça donc on les traite bien te loolu c'est important mais warul yem dans les aéroports seulement dafa war a nekk partout ci société bi les femmes enceintes dañ leen war a traiter pas comme des personnes ordinaires je dis souvent ça c'est pas des personnes ordinaires du ñu ay nitu neen c'est pas des personnes ordinaires c'est des personnes parce que elles Mhm. quelque chose dans leur ventre boo xamante ne d' autres personnes n'ont pas ça mhm. Mhm. te li ne noonu seen biir noonu c' aussi l' de la nation parce que xëy na on sait pas qui est le futur président de la république donc bu ñu bëggee euh, yar bi baax il faut que ñun en tant que société ñu xool bu baax nan la ñuy traiter les femmes enceintes mooy mënuñu laaj les femmes yar bu baax seen doom bu mm-hmm. fekkante ni ñun en tant que société. Mm-hmm. on est les premiers à maltraiter. xam nga loolu daf ñuy may ñu def euh, constat yi dans les les mm-hmm. transport ak en une fois mës nañu dugg bus mais lu ma gën a frappé mooy busu Dakar dem dikk la woon ndaw si dafa duggee ca gannaaw man bi muy yéeg maa ngi koy séen elle était dafa avancé woon ci grosse ndax biir bi wàccoon na. mais ma ama grande surprise dama jaaxle comme li nga wax ni traitement bi nit ki dugg bus dem dik duggee ko gannaaw ñëw ba ci kanam il a fallu que mu agsi ba ci man man toogu moon sax bu baax mais dama ko ne kaay nga toog fii si la donc pour wax la ni xëy na traitement boobu aussi ñun dañuy dem ba yenn yi nga xamante ne moo doon am si suñu penc amatul léegi gisatuñu jigéen ba yërëm ko parce que xool gi nga koy xool wala boo ko doon xool bu doon sa soxna moo duggoon kaar ci état boobu di nga jóg may ko mhm. donc mu mel am na yoo xamante ne aussi man damay wax sa tendance à disparaître ci traitement boobu beneen bi aussi di nga gis ku nekk en état euh, borom këram xëy na des fois nu muy kii ak moom te xamul ni loolu day am impact jeexital ci li nga xamante ne moom nga tudd beneen bi aussi mooy li nga wax sànq dañuy remonter pente bi ba ci ña sos xale ba moo tax mag ñi di wax ne sa sa sa doom danga koy tànnal ay waajur mhm. donc tànnal ko baay mhm. bu dee jigéen mhm. tànnal ko yaay mhm. bu dee yow ko góor gi donc du yem ci rek ni ma koy faral di tooñe mbokk jeunes nii je t'aime rek moi aussi je t'aime rek ñu daal dee sos doom tabarkàlla moo tax loo ci gis des fois c'est des rejets et ce sont les grands-parents qui s'en occupent donc beneen bi aussi ñu gis ni euh, docteur comme ni ma ko waxee sànq on n'écoute plus nos enfants on parle plus avec eux te duñu wax parce que benn yow papa peut-être que yaa ngi xëy di génn ndax li ñuy wax ni góor ak mbalita yam bu mhm. xëyee foog mu génn wuti ci mhm. mais des fois dañuy yéex a ñëw ci kër gi mhm. donc il reste pas ko avec longtemps ak xale yi beneen bi tamit mooy euh, euh, yaay yi dañuy topp travaux domestiques yi sama genre gi mhm. boo xaw a fàtte xale bi pour toog ak moom mhm. échanger ak moom nekk ak moom foo ak moom bëri ak moom mhm. am na sax wàllu jeu ay parents yoo xam dañu foo ak seen doom parce que jàpp nañu ñoom papa danga war a fas sa kanam waroo kaf waroo ree te yooyu tamit dafay amaat jeexital ci ci ci ci ci xale bi daal donc ñàkk wax googu ak ñàkk déglu xale bi et pourtant buñ ko dégloo dina am lu bëri luñ ci mën a jàngat ci moom Mm-hmm. mooy mooy question yaren bi mm-hmm. euh, jamono dafay dox mm-hmm. Seydina Ali karamallahu wajhahu dafay wax mu ne euh, waruñu yar sunu doom yi comme ñun nun ñu mais dañ leen war a yar si li nga xamante ni mu méngoo ak ñoom seen jamono c'est très important parce que euh, bu ma ko mënee wax noonu ci nasaraan mooy on n'est pas les mêmes parents que nos parents maanaam mhm. ñun ak suñu wayjur yi dafay am forcément différence te ñëpp loolu la ñuy ñaan mooy fi fii wayjur way jur yi yem ñun mhm. foofu la war a commencer tabax exactement mhm. gën a avancé mais bu fekkente ne da ngay reprendre yow les mêmes modèles que li nga xamante ne moom nga recevoir kon yokkoo dara ci àddina boo xoolee bu baax bu fekkente ne euh, éducation boo xam bu baax nga yor war nga ci yokk dara bu fekkente ne safaan bi également war nga ko mën a améliorer Euh, ñàkk waxtaan boobu ak xale yi nekkoon na un modèle traditionnel boo xamante ni si jamono bekkoor si jamono famine si jamono yu metti dafay am sens parce que famille bu ne foog mu am priorité donc yooyu c'est des explications sociologiques mais si jamono bi nga xamante ni moom la ñuy dund nii euh, waajur bi nga xamante ni engagé wu loo émotionnellement ak sa doom doo wax ak moom dafa am looy wàññi ci moom si chance pour mu réussir mooy le leadership tey dañ nekk jamono boo xamante ne leadership mooy maanaam ñemee euh, feseel sa xalaat ça ça fait partie du leadership mhm. euh, ñemee jël ay décision ñemee initier et projet mhm. tey boo xoolee gouvernement Sénégal mu ngi jéem a encourager les jeunes lu ñu woowee à l'entrepreneuriat mais loolu mënuloo ko réussir bu fekkente ne si cosaan bi bu mhm. fekkente ne au tout début amuñu base yooyu te base yooyu du gouvernement moo koy def ci xale yi c'est les parents way jure ñoo ko ci def à travers lan à travers waxtaan bu ñuy mhm. waxtaan ak xale yi à mhm. travers jaxasoo bu nuy jaxasoo ak ah, ñoom mhm. kon tey métier parent parce que métier la métier parent dafa war a évoluer ba mu dëppoo ak jamono mu am lu ñu woowee projection mooy maanaam lan nga namm ci xale bi pour les vingt cinq ans est que tu veux mu nekk xale boo xamante ni ñëpp dañuy jël décision moom mu toog di xaar wala xale boo xamante ni dina sentir ni il est important mu ñemee euh, bokk ci ñuy ñuy décider te loolu mi ngi aju ci nan la parent yi di defee espace may xale bi espace ci kër bi ça ne veut pas dire que faut pas ñu tomber ci piège u enfant roi mm-hmm. ce n'est pas ça mm-hmm. mais c'est juste un équilibre équilibre bu ñu trouvé la pour que xale bi sentir ni am na solo ci ay gëti way juróom mooy yëg bi mhm. loolu la ñëpp soxla boo xoolee baax mhm. dans les entreprises dans le gouvernement ak foo mënta nekk mhm. boo boo amul sentiment ni yow tu important pour les gens doo fa mun a évoluer donc si kër gi encore pire dëgg la dëgg la xam nga mooy des li nga wax ci euh, éducation bi maanaam des dañuy fàtte ni mhm. jamono dafa soppi ko mhm. donc bu jamono soppi ko da ngay soppi ko ànd ak jamono mais am na ñoo xamante ni li leen inculqué woon mhm. moom la ñu bëgg a def ci ci jamono bi mel ni genre duplicata yooyu donc reduplication sunu yar ci suñu kaw doom moo tax damay wax ne Sénégal bi nga dugg benn kër fekk nit Euh, ñu nekk kër goo xamante ñu baal ñu je n'ai rien contre les borom saret dawrakat day charretier mm-hmm. mais da ngay gis ni arrière grand parent bi charretier la woon mm-hmm. papa bi ñoo nekk charretier mm-hmm. doom bi ñoo nekk charretier sët boobu day jàpp ne charretier rek mooy métier donc mu nekk lignée wu charretier nga dem fenn aussi euh, dama koy waxtaane fenn mu ne man sunu kër jaay jën rek laa xam donc sama yaay de doon jaay jën et cetera donc mu am benn xarit dafay wax ne man du ma jaay jën bañu koo jaay mhm. mais elle avait d'autres ambitions mhm. tey ji ma nga États-Unis yore fa entreprise parce que dafa jàpp ni ci mhm. jamono boobu effectivement moom war na mën a def leneen lu ëpp loolu et tout le monde ne peut pas nekk euh, occupé benn comme aussi ngay gis aussi benn lignée un médecin doom ji nekk médecin mbaa sa papa nekkul médecin rek donc <laughs> voilà parce que xale bi mën na ko bañ a def mais parce que peut-être mënoon nga bëgg nga def mm-hmm. médecine. Mm-hmm. t'as pas eu la chance d'être mm-hmm. médecin. tu un garçon. par force day nekk médecin. donc yooyu itam il faut que parents parce que bu boobaa. du du bëgg-bëgg. te nit ki lu mu bëggul. du ci dem daal. ba tànn aussi hmm? dafa am solo parce que nit bu yàlla sàkk rek daf koy jox euh, dignité. dignité boobu moo tax ba da ngay jur waaye doom moom mhm, ok c'est très important mhm. parce que dignité boobu yàlla daf la ko jox yow en tant que parent mhm. mais xale eh, ki la yàlla dénk noonu aussi même dignité la am ko yow donc parent ak enfant euh, foofu dañuy dañuy bokk dignité boobu ba tax na waajur bi dafa am foo xamante ni ala kulli xaal foofu la war a yem bu fekkente ni buggul indil boppam problème wala buggul jural xale bi loo xamante dafa yàq avenir mais en même dafay nekk loo xamante ne c'est une responsabilité mhm. étatique aussi mhm. dafay dépasser cadre famille bi mhm. pour montrer que dans le système mooy gouvernement bi tey bu fekkee bu fekkente ne ñun am na loo xamante ne moom la ñu namm ci ressources humaines ressources humaines yi on sait très bien que ci tout temps kii lañ koy tàmbali tabax donc loolu dafay laaj gouvernement bi également mu teg ay modules yu tax ba ñu mën a renforcer capacité parents yi parents yi ñu waajal leen ça c' est très mhm. important donc warul nekk juste une question de ñaari nit yu bëggante mhm, mhm. dafay dépasser question ñaari nit yu bëggante pour mu nekk question boo xamante ni c' de la nation parce que ñoom bu fekkente ne bëggante nañ mais mënuñu yar seen doom bu ñu juree kenn te yaruñu ko dafay ñëw nekk problème mu état bi après moo tax état bi forcément loolu daf koy intéressé moo tax il va falloir mettre en place un programme d' éducation mooy mu ay centres yoo xamante ni ñi nga xamante ni yaakaar nañ ni dinañ am dinañ soxla yenn question yenn réponses yi ñu mën a dem foofu ñu koy posé moom am ay spécialistes yu leen mhm. mën a jox ay tontu yoo xamante ne mhm. également dina dëpp ak jamono et le constat tout à fait vrai parce que boo mhm. xoolee li sëñ Cheikh doon wax ni au Sénégal il a pas un ministère de l'éducation mais il y a un ministère de l'enseignement te mooy éduquer tuñu parce que éducation c'est plus large que enseignement te boo gisee léegi xëy na bu njëkk li ñu daan wax da nga daan tase ak sa maître da koy ragal a moom ci yoon bi mais léegi dañoo ñeme parce que on n'éduque plus dañ koy donc euh, côté boobu aussi ñu ñu bàyyi ko xel beneen bi aussi mooy xëy na ci wàllu impact yi toujours mhm. des fois comme kër la ñu wax mhm. donc y a des de violence yoo xamante ne dafay faral di poser wu ci kër gi donc moo xam violence euh, conjugale la te mooy papa ak yaay ñuy xuloo ci kër gi xale bi di ko fekkee muy dóor xale bi xale bi di ko xool moo xam góor la surtout loolu est-ce que du am jeexital parce que tamit nit ñi xëy na xale moom des fois li ñu naan xamul yàlla mais xam na yar mais est-ce que yar boobu des fois ni ko nit ñi di defee du indi benn sadisme boo ëpp du indi yenn kii jeexital yoo xamante ne moo xam physiquement mhm. ci nit ki dootu ko fàtte ndax am na ñoo mhm. xamante ne bu ñu ibbee seen gannaaw mhm. ay tërgal yu méttee ci nekk parce que seen parent te loolu mën na dem ba am jeexital ci ci vie de couple am mu jël jabaram di ko dóor di ko dóor fekk na loolu parce que l'enfant imite à un certain âge waaw foog xam ne foo foo xamul doo ko nàmm parce que à un moment donné bu fekkente ne engagé wu nga ci vie conjugale dafay am loo xamante ne sóoraale nga ko donc dina yomb si mais loo xamante ni sóoraalewuloo ko muy ay situation yu la bett xam nga dañuy wax li la bett mën la donc yooyu boo boo àggee si situation yoo xamante ne daf la bett dangay ngay ay modèles yoo xamante ne moom nga yor si sa mémoire mhm. te il faut mu nekk ay modèles yu baax donc bu fekkente ne yow fekkewoo un modèle boo xamante ni boo amee problème dans le couple entre les parents xëy na ils ont une façon de d'en parler ci jàmm ñu régler seen problème ci jàmm donc yow euh, violence rek nga mën a utiliser parce que loolu nga xam mm-hmm. donc tu utilises par défaut mm-hmm. modèle bi nga xamante ni moom nga am nga si ni pendant des années mm-hmm. te dañuy wax aussi lu yàgg dëgg la même si ce n'est pas vrai mais ça veut simplement dire que moom ngay gën a référé wu donc dafay da ngay utiliser modèle boobu sans nga nekk forcément nit koo xamante ni. Mhm. da nga violent wala da ngay nekk nit ku mhm. bon wala yooyu. Mhm. mais dafay nekk modèle boo xamante ni moom moo disponible léegi. moom nga mën a utiliser. donc ba léegi dafay am solo kon waajur yi ñu bàyyi xel. ni ki xale dafa am espace. boo xamante ni daf koy bokk ak waajur yi. mais mu am un espace privé boo xamante ni yoonam néew ci. ñu mën ko épargner bu ñu ko exposer ci violence conjugale. donc xam nga si dans les familles occidentales. dañuy jàpp ni ont waa war nañ mën a wax lépp xale bi mhm. ñu loolu de suñu culture mhm. parce que am na yenn information boo ko joxee xale bi da nga koy sonnal dëgg la quel ban objectif la kon nga jox ko information yoo xamante ni amul njëriñ ci moom wala nga koy exposé si ay scènes yoo xamante ni pour ñoom c'est tout à fait normal mm-hmm. Mm-hmm. mais en réalité loolu euh, teguwul ci xam-xam dëgg xale dañu kay épargner mm-hmm. y a des choses yoo xamante ni c'est uniquement entre les parents yoonam new ci benn ci way juri waru ko dugal ci seen problème waaw gis nañ des des parents yoo xamante ni ngeen baal ma ci wax bi mais parfois duñu responsable waaw dinañ ñëw Euh, nekk ak seen doom yi di wax lu bon ci beneen wayjur bi mhm. c'est totalement irresponsable mhm. baaxul ci ñoom mhm. baaxul ci xale bi baaxul ci couple bi baaxul ci famille bi baaxul également ci askan bi parce que ci divorce rek lay yóbbu couple boobu dëgg la la donc beneen bi aussi beneen bi aussi docteur xëy na wax nañu euh, donc dafa ni nit ñi koy faral di waxee dañuy jaawale ñaar yu nuru te bokkul baatu violence mhm. te mooy métital bi mhm. ak baatu punition mhm. waaw donc foofu naka lañ koy ràññeete parce que des fois aussi punition mënta bañ a ñàkk ndax itam xale comme ni mu ko waxee xamul yàlla waaye xam na yar waaw kii kan la ah kii de mooy sama doom ji moom du foo dem mu nekk fa ah, man Adja Ndawa Adja Ndawa ça va nekk ça va bien ko ça va <laughs> laaj laaj bu am solo la <laughs> uh-huh. euh, ak violence dafa dañu dafa mel ni yàlla ak yàlla yi dañu wute euh, yar man na ànd ak euh, euh, punition donc mooy bëri na ay ay façon am na privation mooy maanaam nga xool lu xale bi gën a bëgg nga xañ ko ko mën na nekk mën na nekk yenn forme de de travaux yoo xamante ni ba léegi du dégrader dignité xale bi lu am solo ñu bañ humilier xale bi bañ ko méttital c' mhm. très différent mhm. waaw lépp li nga xamante ni humiliation la du xale bi kese ngay tooñ mhm. borom bi si boppam ngay tooñ parce que dignité ba mu jox xale bi dignité boobu nga nekk di bafoué te loolu ñun en tant que way wayjur duñ ci bay xel moom la moom si loolu laa tàmbali woon bu may expliquer affaire u dignité dignité yàlla moo ko jox doomu aadama ba mu ne na na na malayka yëpp sujudal suñu maam aadama du dégg bi bi ci la ko yàlla dàq parce que dafa bañ su sujjóotal dignité boobu mhm. donc dignité boobu moom la ñu yàlla jox moom la yàlla jox sunu sunu waajur yi ñun mais moom la yàlla jox également sunu doom yi loolu kenn amul droit bafoué ko mhm. gis nga mhm. esclavage lu tax mu nekk un crime contre l'humanité parce que dafay violer les mm. droits de les droits mm-hmm. humains donc dignité boobu dafay am solo donc mm-hmm. booy yar xale bi ci erreur bu mu def mm-hmm. da ngay dignité boobu parce que yàlla moo ko ko jox dafa dépasser autorité parentale donc ça veut dire que ñun en tant que parent en tant que wayjur bu ñuy euh, gérer parce qu'il s'agit de gestion bu ñuy gérer faute wala erreur xale bi te foofu il faut faire attention am na lu ñu wooye ci nasaraan méfait ak malfait méfait mooy loo xamante ni xale bi moo ko il l'a fait exprès def lu bon exprès mal fait mooy yéene bi. Mhm, moo doon lu baax lu baax la woon mhm. mais résultat bi baaxul mhm. foog nga ràññaatle ci diggante méfait ak ak mal fait du dégg. nañ ko ko nga de. waaw mango bi moo neex. donc foog ñu ràññatle loo xamante ne moom may méfait ak mal fait te boo jëlee temps. pour ràññatle loolu. c'est temps bi nga xamante ne di nga gis ne au final xëy na yenn violence yoo waroon def xale bi xëy na doo fa àgg. parce que jël nga temps réfléchir. donc yàkkamti mhm. réagir bi. Mhm. mooy tax ba doo jël temps xool est-ce que il avait fait exprès. wala est-ce que finalement il voilà. Mhm. donc loolu nekk na loo xamante ne vraiment am na solo. Euh, pour ñun en tant que waajur ñu bàyyi xel ci situation boobu. ba ñu mën a. sévère. punir bu fekkente ne war nañ punir sans ñu. ñu gaañ ñu gaañ sans ñu mhm. euh, humilier xale bi mhm. sans ñu euh, violer ses droits mhm. mooy maanaam ñu sàmmante ak sañ-sañu xale bi pendant punition dëgg la xam nga li nga wax sax ni des fois malfait ak méfait te mooy ñoom soo xoolee ay nitu yéene lañu mm, toujours boole leen xool dañuy bëgg di def lu baax euh, mais par exemple dañuy jël exemple xale bi nga xamante ne dafa gis ñuy pikiir benn xale comme un médecin mu ànd ak peut-être frère am feebar nañu yóbbu ci médecin mu pikiir ko seringue li des fois c'est pas bien rangé dans les maisons wala mën nañ ko for comme nu ñuy waxee xale fu nekk lay kii mu jël seringue fekk moroomam wala rakkam jam ko ko mais da ngay gis yenn maman yi dañuy jëlaat seringue bi ñoo ne ko kaay da nga ko jam kaay ma jam la ko or est-ce que xale bi comme ni nga ko waxee yéene jam la ci kii wala donc bu cas bu posé wu lan nga war a mën a xelal yaay ji pour mu xam ne kii kat jublu su woon lu baax. mais lu bon. mais lu baax la ci jublu woon. am na am solo. boo xoolee bébé bi mu ñëwee. tout suite dafa bëgg dafa dafa attaqué sunu sunu sunu veste bi du dégg uh-huh. parce que xale benn rapport rek la mag ak këf yi. ak mm-hmm. objet yi. Mm-hmm. mooy un rapport d'intérêt. mooy maanaam xale lu ko intéressé kese kese kese la xam noonu la ko yàlla bindee. Mm-hmm. kon est-ce que mën nañu yar xale bi mhm. yarin boo xamante ni dëppawul ak nan la ko yàlla bindee loolu dafay dafay nekk problème mhm. donc bu ñuy yar xale bi il faut ñu xool nan la yàlla bindee xale bi mhm. te si nu ko yàlla bindee gis nañu xale rapport d'intérêt kese la mooy maanaam xale lu ko intéressé rek la ba léegi boo xoolee ba mu ngi lay sonal ba léegi ci taabal gi ci best bi ah, ba la mel donc xale lépp pour moom lépp ay këf la c'est des objets moom la ñu mooy dafa jàpp ni moom kese moom moo exister en tant que mhm. sujet dëgg la donc yaay ji euh, papa ji mag yi rakk yi ak mhm. lépp li nga xam ne mi ngi si si euh, kër gi da da leen di jàppee comme ay objet mhm. bu fekkente ni jàppee na leen ay objet objet dañ ko def pour ñu mën leen manipuler donc xale bi gis nañ ni dafay jéem a manipuler parents yi <laughs> nee dugg ci bakkan gi de <laughs> <laughs> dégg ah. donc loolu c'est c'est c'est important ñu bay ci xel. lépp li nga xamante ne objet la ci kër gi. Mhm. xale bi daf koy par ni objet yooyu ci biir objet yooyu. Mhm. am na lu ñu woowee les objets moro et sociaux. Mhm. mooy tere yi. bu fekkente ni am na lu ñu koy tere. comme objet la. daf koy manipuler kon mooy dina def li nga xamante ni. ni mu bëggoo ko exactement. lépp li nga xamante ne dañ dañ ko koy tere dina ko def mais interdire c'est provoquer mais loolu il faut waajur yi xam ne noonu la yàlla bindee xale bi mhm. je suis pas en dañ koy bàyyi mu def lépp lu ko nekk ci kër gi mhm. Mhm. mais dama na solo nu xam loolu noonu la ko yàlla bindee ñun ñooy adapté suñu yar ba ñu continuer sàmmante ak sàncañu xale bi ba pare ñu topp nañ la ko yàlla bindee ba duñ ko gaañ xam nga li ngay wax noonu xale effectivement loo ko tere amoon na benn xale ndeysaan su su su nit mu saan ñoo ne ko nuyu ma du lu mus a nuyu naam waaw waaw waa xaaral tuuti xaaral tuuti de su la su soo ko nee nuyu ma du la mus a nuyu mhm. waaye nag boo accès rek ne ko bu ma nuyu de bu ma nuyu bu ma nuyu rek mu jox la loxo ñëw fekk si la jox la ah. jox la loxo donc pour dëggal li nga wax ne xale li nga koy tere donc moom tout le temps boo ah. bëggee mu def dara c'est le contraire des fois mais comme du toujours daal euh, beneen bi aussi ñuy gis aussi ci euh, dégg la bëgg oui tonton oui tonton la bëgg a da nga bëgg a jus ah. ñu la jus loo bëgg a jus voilà mm. donc euh, ci ci xale aussi. Mm-hmm. gis nañ ni ñaar waa suul nga kon ñu teg kon bu ko laa laajaat ah, dégg <laughs> donc ñu gis ni. xale ñaar aussi da koy faral di def dañ koy mm-hmm. faral da koy faral di def ay waajuram. Mm-hmm. wàllu chantage. ak wàllu fantasme. donc chantage bi mooy des fois rek euh, tabarkaal dañuy manipuler seeni waajur ak tamit fantasme nga xamante ne di inventer loo xamante ne du dëgg donc loolu tamit naka lañ ciy kiiyee parce que des fois il raconte des bobards mhm. mais aussi est-ce que yow nit ki yow wéy jur bi da ngay naan boisson waa naan nga boisson doyu <laughs> ginaar gi baax na ci kër gi donc ñu ngi doon wax ci donc xëy na balaa ñuy continuer rek ñu ngi fàttali ñu ngi toujours ci kër sama deuxième euh, saison tey nag suñu thème moo dellu woon ci jeexitalu yar gi nga xamante ne amoon na ko ci ñi dëkk ci kër gi tey nag jeexitalu yar bi ci xale bi lañ ko fas yéene waxtaanee li mm-hmm. ci ànd ak suñu gan mm-hmm. docteur Ibrahima Giro mm-hmm. kon docteur ñi ngi toujours ci biir thème bi mais mu am benn pàcc boo xamante ne aussi dañ koy faral di gis ci xale yi te mooy chantage bi xale bi di exercer ci parent yi te ba koy manipuler ak tamit wàllu fantasme bi nga xamante ne xale bi dina ko def fois te mooy di wax di raconter loo xamante ne parce que ñoom dañu bëgg yu rëy. Mm-hmm. donc wax gi te mm-hmm. wax gi dara du ci dëgg. Mm-hmm. yooyu noonu. naka lañ koy euh, gérer. am na am na solo loolu dafay nekk ba léegi ci cycle développement xale bi. Euh, tant que dépassé wul yenn yenn euh, proportion yi. dañuy jàpp ni dafay développer intelligence xale bi maanaam bu fekkente ne diggante. Euh, ñaari at jàpp ñeenti at ba juróomi at mm. euh, xale bi dafay wax loo xamante ni euh, ce n'est pas la réalité muy fantasme comme ni nga koy waxee. Mm-hmm. loolu c'est des preuves de son intelligence xoolal rek. d'accord donc mën nga nekk ci société boo xamante ni. Mm-hmm. dafay dafay accepter mm-hmm. xale bi développé wu. ci boobu cadre boobu. mën nga nekk ci société boo xamante ni également. Euh, en fonction de niveau de richesse bi mhm. wala book de niveau de pauvreté bi mhm. dafay am ay priorité mhm. donc yarin bi aussi wala yar bi dafay ànd day day méngoo toujours ak niveau de développement askan bi parce que parce que nu ñuy yaree xale yi ci askan yu développé ak nu ñu leen di yaree ci ci askan yoo xamante ni euh, xëy na c'est un peu plus à pauvreté du nekk même même yar ok mais malgré tout mhm. bu fekkente ne bëgg nañ développer euh, Sénégal comme ni ñu ko waxee Sénégal émergent en mhm. deux mille trente cinq mhm. il faut nu xoolaat bu baax a baax nan ni waajale xale yi tey nga xamante ne deux mille trente ñoom ñoo war a yore développement boobu euh, ci loolu xale boo xamante ni dafay fantasmer comme ni ñu ko waxee dafay inventé muy wax loo xamante ni amul bu fekkente ne euh, nekkul xale bu yeew du ko mën def yooyu c'est les preuves que cerveau mi ngi dox cinq sur cinq léegi nan la wayjur bi di def ba mu encadrer loolu pour bu mu dem ci pathologie bi nga xamante ne moom mooy mensonge bi loolu da ngay gis kon ça veut que parent bi dafay am responsabilité pour benn xale bi mën a inventer un monde ñaar mu bañ a inventer ba muy dugg ci mensonge mhm, mhm. oui donc invention monde boobu c'est comme nga joxoon tey xale euh, bi ak fay mhm. nga ne ko na mu def ay dessin nu muy dessiner noonu mhm. du am sens yow mhm. c'est la même chose que fantasme yooyu d'accord voilà mhm. sauf que bi que feuille dafay dafa lu muy rëdd ainsi de suite ñun man na bañ am sens ñun sauf que moom am na sens si moom de la même façon li ñuy jàppee ni c'est des mensonges ci période boobu noonu développement léegi c'est juste nan la ko wa yan yan yan yan message la wayjur bi di joxee pour woon ko non no ce pas exactement ça est-ce que mm-hmm. ce n'est pas plutôt ça mm-hmm. période boobu noonu la ñu di yaree mm-hmm. pour bu ñu freiner développement intellectuel boobu parce que développement boobu dafa am solo boo gisee lu tax mu am solo yenn am na yenn yenn élèves yoo xamante ni comme on dit ils réfléchissent à voix haute mooy maanaam pour ñu réfléchir bu baax foog ñuy wax ci kaw si suñu école yi dañ koy tere dañuy tere kuy donc gis nga donc dafa mel ne l'école sénégalaise parfois ci nu ñuy former enseignants yi mhm. am na yenn catégorie d'enfants yoo xam ne duñ fa mës a réussir parce que dañ leen di tere réfléchir à mhm. haute parce que à haute voix la réfléchir donc dañ leen di formater euh, en quelque sorte dañuy bloquer seen développement tout à fait mooy également waajur boo xamante ni du may xale bi possibilité fantasme bi nga wax noonu mhm. loolu waajur bi moo koy créer ok am na est-ce que c'est pas plutôt lii mu am un dialogue éducation foog mu nekk dialogue bu ñu buggee développer en tout cas bu ñu buggee def si même situation mën nañu appliquer les mêmes règles que yu ñu recevoir en deux mille euh, en mhm. mille neuf cent vingt cinq mhm. mais tey mhm. bu fekkente ne dañuy projeté wu pour développer askan bi il faut ñu xoolal bu baax ban espace la ñuy joxale puisque ñoom ñoo yore ëllëg réew mi il faut leur Eh, du nekk xale yoo xamante ne dinañ liggéey fii Sénégal mais pour que fépp fu ñu mën a dem ci adduna bi mhm. buñ sëgg mhm. parce que xale yi ñuy fekki mhm. c'est des enfants yoo xamante ni dañ leen waajal jox nañ leen place ñuy wax lu ñu xalaat moo tax ñun foog ñu waajal suñ doom parce que suñ génnee également si compétition internationale yi ñu man a mën a jonjonteeg ñooñu dëgg la mais aussi toujours dañuy dellu si waat ci fantasme boobu xam nga donc pour bañ mu tourner ci mensonge comme maanaam fen ñu baal ñu ci baat bi mhm. ndax gis nañ ci ay gëstu mhm. donc xale bu fantasme ba dugal ab instituteur mhm. biir kaso donc defe naa Jacques Brel bind na si benn livre donc fantasme boobu aussi ax bu waajur bi jàppee ni xale bi day fantasme te bàyyiwul xel ni nga waxee naka la ko war a gérer xam nga dina dem ba ëllëg xale bi dina la indi sa dëgg nga jàpp ne day fantasme ki daal waxam du lu nit di jàpp surtout ci période bi nga xamante ne jamono ji euh, lii xew toujours ñu ngi déglu faits divers yi pédophilie bi ni mu amee ampleur ci dëkk bi inceste bi nu mu amee xëy na dina ñëw inceste bi si wàllu promiscuité bi mais pédophilie bi ak bu ñuy bu suñu doom yi di jàngi tey jii ñuy roode ñu baal ñu am na baat bu ñu leen di wooyee ci koñ yi ci xale yi wala jigéen ñi la ñuy faral di di di di di wut mm-hmm. donc pervers yi mhm. bëri na bu ñu mhm. xoolee dans de avec euh, portable yi mhm. yii ñuy partagé man des fois sax ma di am na image yoo xamante ne kenn waru ko partagé donc li xew rek est-ce que du jaadu des fois même buy fantasme nga bañ a jël lépp yóbbu ca mbalit ma di déglu di seetlu parce que des fois aussi dans ce qu'il y une part de vérité daal côté boobu aussi ci ci xale bi lu muy wax yëpp dëgg la ci moom c'est ça après mën na am ay cas yu excessif comme exemple bi nga expliqué noonu ba mu am fu mu dugal enseignant bi c'est vrai c'est mais excès moom c'est l'exception qui confirme la règle suñ ko mënee wax noonu donc accident yooyu lu lu luy am la mais du tere nécessité pour waajur bi mu créer espace pour xale bi pourquoi c'est important nit lenn rek la am mooy ñu yëg ko mhm. te loolu si période développement la gën am solo mooy comme ni mu wax diggante euh, tous ba ba juróom-benn at mhm. bu fekkente ne xale bi day day day sublimer wala bu fekkente ne xale bi day fantasmer dafay laaj parents yi encadré ko te parent bu encadré doomam dina xam lu ci dëgg ak lu ci dëgg parent bi nga xamante ne amul temps nekk ak doomam mhm. mën a jaxasoo ak moom xam également nu muy poser limites yi mhm. mais moom moo dul xam luy dëgg ak loo xamante ni mooy safaan bi ci lu xale bi di wax mhm. parce que doo mën a xam sa doom ba nga mën a mhm. ràññate looy xamante ni mooy dëgg ak lu dul mhm. dëgg lu dëgg donc c'est important donc question gestion euh, fantasme boobu dafay dafay euh, nu mu tuddati dafay fondé ci attention bu parent bi am ci xale bi lool la mhm. est-ce que c'est un parent distant mhm. parent yoo xamante ni parce que amuñu daanaka mhm. benn relation ak seen doom parce que dañoo jàpp ni wayjur warul jaxase jaxasoo kay doomam mais doom ma sa xam sa doom kon mën na la indi loo xamante ni baaxul nga jël ko wala mu indi la loo xamante ni baax na nga dàq ko dëgg la donc question bi yëpp dafay ñëw si ban xeetu wayjur la ñu am mhm. et non pas ban xeetu xale la ñu am parce que xale ñoom ñëpp benn lañu mhm. ñoom ñëpp dañuy fantasme mhm. ñoom ñëpp dañuy créer ñoom ñëpp boo leen joxantee bi ak fay dañ lay dessiner loo xamante ne si yow du am solo kon question bi du si ñoom question bi ci expertise u jur bi la ak ci personnalité wayjur bi nan lay engagé ak peut-être même plus loin ci yar bu jur bi si boppam recevoir ci ay wayjuram dafa sori xëy na sax bokk ci kii bi mais exemple dafa benn xale. Mhm. day julli jublu ouest. yaay ji ne mu ànd ak yaay ji di julli yaay ji jublu penku. Mhm. yaay ji foog ne dafa julli ba pare jublu nii di ñaan comme ni nit ñi di def boo jullee ba pare tourné. ndekete moom daa julli rek jublu ouest. Ah. yaay ji pare ni ko julli nga mu ne ko julli naa kay. mu ne ko foo euh, jàkka euh, jublu nga julli mu ne ko côté bii. mu ne ko ba ba ñu dalee nekk ci kër gi. yow kañ nga mës a gis may julli di jublu nii. Mhm. mu ne ko dafa am loolu wax nga jublu nii mu ne ah mu ne ko loolu nu mu mel mu ne ko ah loolu de xaw ma ko. Mhm. waaye daal wax na ma ma jublu nii. yaa ji xam ne li muy wax kiwul donc mhm. amoon na envie ju julli ah. ju julli. mu ne ko tey ji nag soo ma waxee dëgg bi. ma baal la. soo ma waxul dëgg bi mhm. dama lay dóor mhm. nit kooku da nga ma koy décrire mhm. nan la mel ak ah, nan la waxee parce que ñoo fi nekk te mënul wax man du ma ko dégg mu ne ko damaa doon kii rek moo tax ma jublu noonu waaye loolu amul pour wax la kon seen imagination bu doon yaay jukki da nga naan ah néeg bi de am na ko fi nekk ak njaboot bi donc nga gëm lu mu wax te fekk li muy wax des fois dara lu ci dëgg c'est leur imagination la ah. donc seen création waajur yi sax dañuy fantasmer dañuy utiliser loolu mooy mooy mooy baatu seytaane bi ngay dégg nii mhm. eh, non seytaane moo la dugal dugg dëgg la parce que fantasme moom dafa nécessaire mhm. pour que vie sociale bi également mhm. mën a dem parce que dëgg kese dafay indi problème dëgg la waaw même wolof dafay wax Euh, fen buy defar moo gën. dëgg buy yàq dëgg buy yàq donc bu ñu bu ñu waroon dox si si dëgg kese. Mm-hmm. Mm-hmm. sans fantasme boobu. Mm-hmm. vie sociale bi dafay froide. du mën a nekk il faut ñu indi loo xamante ni moom mooy ànd ak dëgg bi mooy fantasme yooyu. pour ñu mën a xool nan la ñuy indi nan la ñuy waxee dëgg waxin bi. c'est très important. moo ëpp solo parfois. du dëgg donc pour xale xale amul niveau de conscience bu ñuy am euh, ñun en tant que adulte pour wax nii non euh, dëgg à la collègue al ah, foog ñu non dafay utiliser fantasme boobu pour mu jox la benn réalité boo xamante ne d'après moom moom nga mën a accepter ci moom mhm. d'accord beneen bi kon euh, xëy na foofu la ñuy waaj tëje mooy delloo ko tamit ci facteurs yi maanaam impact bi mhm. ñaar da cee am mooy conduite parentale bi moom lañ doon waxtaane nii mais aussi wàllu matériel bi delloo ko ci dëkkuwaay bi aussi da ciy faral di impacter ci éducation xale bi te gis nañu sunu dëkkuwaay li ñu tubaab di tuddee promiscuité raj-rajloo bi bëri na des fois nga gis parents ak i doomam ñëpp ci biir biiri néeg te comme des fois nag xale mën na yeewu guddi Euh, jóg tey doo yëg ni yeewu na am yiy xew mu ciy teg bëtam ñu delluwaat ci li ñuy wax ne xale day imiter tout le temps est-ce que jaaduwul tamit côté promiscuté boobu ñu gën ko xoolaat parce que promiscuté boobu moo jur wàllu inceste bi nga xamante ne lëmb tey ji nga gis papa tëddee doom wala nga gis magax rakk mag ku càmmeñ tëddee sëram et cetera pour ñoom chose normale la parce que dès le bas raj-rajloo bi nga xamante ne moo nekk beneen bi ci des itam da ngay gis suñu biir kër yi dañuy simbeeku yaay day taxaw ni ci kanamu doomam solu diwu yaramam def lépp ci kanamu doom yi et comme l'enfant est curieux yaay yaramu yaay di nu muy métamorphosé noonu nu muy mel mm-hmm. donc dina am des fois mm-hmm. curiosité boo xamante ne fu mu koy expérimenter mhm. ci ay moroomam la mhm. wala ci ci ñeneen daal mhm. donc côté boobu day dellu nag ci li ñu tuddee suñu tabu ci wàllu éducation te mooy la sexualité kenn du ko wax te am na loo xam boo ko woo sa doom ci biir kër gi feneen la koy jàngi te la mu ciy def du la neex foofu tam ñu gën cee ñëwaat kan la ñu war a jàngal suñuy doom ci wàllu sexualité bi pour ñu xam li ñu war a xam tamit ci cycle bi nga xamante ne lu ne fa nga koy defee tamit. Euh, soxna Alimatou laal nga point bu sensible mm-hmm. point bu sensible d'autant que tabou la. Mm-hmm. mais sensible également parce que chaîne de responsabilité bi. Mm-hmm. ba ci question bi moom moo moom moom moo yaatu. Euh, lu jur souvent promiscuité. mooy ndóol. mooy pauvreté. Euh, responsabilité pauvreté dafa partagé entre. parents yi ak société bi en général mais dafa partager également ak ñi nga xamante ne ñoom la ñu jox gestion réew mi mooy mhm. gouvernement dañ ci am wala mhm. donc ça veut dire que mhm. il faut xam nga tey on est 2018 dañ ko tuddee l'année sociale année sociale boobu ça veut bien dire que il va falloir ñu réduire pauvreté ci Sénégal mais réduire ko également ci àdduna bi il faut ñu réduire ko ci àddina bi en général pour que ñun ñu mën a mucc dëgg la dëgg mhm. donc xeex contre pauvreté mhm. mooy la lutte contre pauvreté mhm. tant que gagné ñu combat boobu promiscuité mënta ñàkk dëgg la parce que nit ki ñaari nit yoo xamante ni euh, ñoo ngi ci euh, mariage kenn mu leen wax bu leen am doom mënta nekk léegi souvent gis également que famille yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a nekk ci pauvreté souvent foofu la nombre d' enfants par famille di gën di gën a bëri dégg donc loolu c'est un problème boo xamante ne euh, il faut ñun xëy na en tant que psychologue wala en tant que imam en tant que société civile ñu ci wax mais responsabilité bu gën a mag ci état bi la mhm. pour mu teg ay action yu urgente mhm. pour mu régler question pauvreté bi mhm. tant que régler wu ñu pauvreté bi du ñu mën a régler question promiscuité bi tant que u wuñu question promiscuité bi duñu régler question exposition xale yi à scène yi nga décrire ak tout ce qui va avec mhm. pédophilie bi mhm. euh, mais également inceste bi ainsi formes de violence mhm. et de dégradation de l'humain mais Euh, je veux dire que va falloir donc dafay nekk question buy dépasser cadre bi question bi njëkk a pour mu régler bu ñu dépassé cadre état bi également mais dafay nekk une question également question askan bi parce que dafa mel ni ñun léegi amatul solidarité dëgg la lu ñuy wootee teranga bu ñuy wax noonu warul nekk teranga boo xamante ni ki extraverti pour les étrangers mhm. dafa nekk une forme de solidarité mhm. sénégalais dafa war a mën a tey yi am yërmande mhm. ci morom sénégalais waaw sa je mën naa juum dafa mel ni dafa loolu dafa waññiku bu baax a baax yenn fet yi nga gis les gens dépensent beaucoup d'argent mhm. mais juste à côté am na une famille mm-hmm. vulnérable boo xamante ni mm-hmm. boo yëkkati woon un pour cent de li nga dépensé ci fête bi mm-hmm. mun na mun na ko nourrir pendant un mois donc suñu comportement ñun en tant que société dafay jur promiscuité donc société bi également am na am na ci part de de responsabilité donc vraiment chaîne la chaine la boo xamante ni xëy na mhm. conséquences yi rek nekk di gis ni mhm. mooy mooy inceste bi mhm. ak yi nga xam ne mais vraiment dafa il faut bien voir ce qu'il y a avant muy muy responsabilité état ak gouvernement muy également responsabilité société ban société lañ nekk tey Sénégal vraiment on se pose la question énormément de gaspillage état bi jéem na xeex loolu avec beaucoup de lois mais les lois ne marchent pas parce que lii ay jikko la donc il faut que ñun ça interpelle chacun de nous. Mm-hmm. boo amee cent franc nga soxla ci un seul franc. Mm-hmm. xëy na am na quatre-vingt-dix-neuf yoo xamante ne am na ñeneen yoo xamante ne. soxla nañ ko et ça remet en cause même suñu suñu diine. Mm-hmm. on est dans quelle religion wala ñun on n'est pas sincère dans notre religion. parce que suñu religion moo xam chrétien bi moo mhm. xam musulman bi mhm. mais c'est ça nous appelle à la solidarité bismillah rahmaani rahim lépp yërmande la pour cent musulmans et qu'on ait plus cent mille ménages pauvres au Sénégal ce n'est pas possible lay interpeller en tant que religion mhm, ñun lay interpeller en tant que modèle de société mais ñun tant que responsabilité étatique et waaw ah, kon xam naa comme ni mu ko waxee xëy na ñu ngi tiré à la fin de l' émission comme ni mu ko waxee na comme waxtaan bi dafa dellu rek pour jéem a wut saafara ci kër gi mhm. ndax bu kër gi dalee pénc bi dal mhm. bu penc bi dalee réew mi dal mhm. bu ko defee jàmm jooju ñuy suuxat dafa am fu muy tàmbale comme ni nga ko waxee xëy na li ñu tudd tey doon ko waxtaanee delloo ko ci jeexitalu yar gi nga xamante ne moom la ñu amoon ci suñu koy doom loolu responsabilité ku nekk la comme ni nga ko waxee am na lu ci état moom am na lu ci pénc moom am na lu ci famille moom mhm. bu ko defee ku ci nekk la nga sa moom nga jéem koo def parce que responsabilité état aussi comme ni mu ko waxee ëllëg lii amatu Mahtar Mbow doon wax combler la gap entre le nord et le sud mhm. loolu tam lu ñu war a sóoraale la mhm. ci sunu génération yi nga xamante ne mooy ñëw ba ëllëg ñu def si ñoom li nga xamante ne moo ci war te bu dee budget ci wàllu éducation ñu gën ko yokk ñiy jàngale aussi ñu gën leen a jox gëdd pour que ñu former ñu ëllëg ay leaders yoo xamante ne waxuma ne sur le plan national su régional mais à travers le monde ñu mën di jonjanteeg seeni moroomu xale di d'ici vingt cinq ans ou trente ans loolu nag responsabilité état comme ni mu ko waxee parce que boo xoolee tey jii les états les puissances bu ñu fi doon tudd tey tey Japon dem na ba sut ñenn investir en matière d'éducation moo tax kon éducation boobu kon ñu ngi ciy ñaan suñu autorité étatique yi mhm. luñ ci mën yokk ko ci xale yi ñuy former ay leaders. mais aussi lu ñu mën a jàppale ñi nga xamante ne ñooy formateurs yi ñooy jàngalekat yi aussi. ci tamit ñu motale mission boobu. beneen bi aussi wàllu penc bi comme ni ma ko waxee xel mënut a nangu. Sénégal ñi nekk fi 99 pour cent de musulmans alors que li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bu solidarité bi mi ngi koy mëngale ki nga xamante ne yaramam dafa am fuy métti. bu ko dara méttee yaram bi yëpp a koy yëg. kon mu mel ni li nga wax dëgg la xëy na dafay des que ñun adepte de de la parole mhm. waane actu moom dañ ciy def mhm. ñun daal ñun wax ji mhm. mën nañu wax ne jullit lañu koo ci wax doo jullit mu xuloo ki yow waane jëfandikoo gi nag laisse à désirer moo tax na kooku tam ku nekk duggaat sa ruq manakaan xoolaat li ciy part de responsabilité beneen bi mu ñëw ci wàllu famille donc sëy du du du kees li ma wax démb ne il faut que le mariage soit sacré tant que jàpp ñu ni que mariage et sacré jigéen est sacré l'homme est sacré xale bu juddoo ci sëy boobu mhm. c'est sacré mhm. kon lu ñu bëgg ni mënta nekk mhm. comme sacré la alalu yàlla la kon loo ci def xamal ni pertoo ko ndax ëllëg yàlla dina la ko delloo delloowaat ndax itam gis nga di nga gis des fois xale am problème ak waajuram mu naan sama doom duma ma toppatoo est-ce que du jeexatali la nga doon def démb soit da nga ko doon def ndeyam mhm. il était témoin ou lait était témoin mhm. mu koy xool mhm. ëllëg mu jur ci yow bu amee du la defaral wala ba ni nga comporté wax moom kon moo tax li nga wax ni il faut remonter la chaine dëgg la ba tax na li ñuy def rek ñoo xam ne xale du fàtte c'est une page vierge te am na loo xamante ne boo ko defee da koy marqué marque euh, encre indélébile da koy marqué durant toute sa kon ku lu waay di defati ci xale na nga xam ne euh, na na nga engagé ses responsabilités beneen bi dañu wax ne sa doom mu le plus beau cadeau qu'on peut offrir à son enfant nga may ko éducation bu baax ndax itamit xale boo ko yaree def ci moom la mu la ko war la ca war yépp ëllëg dana nekk xale boo xam ne dana toog wax mag mhm. du wax mag bu nekk accam mhm. loolu day fekk ñu commencé ko ca biir këram mhm. way juróom mi yar ko yar goo xamante ne laxoom dana set bu ku nekk dana bokk moom ndab mais am na xale boo xamante ne bu rombee ñëpp moolu ko donc li ñuy wax ne des fois sa doom danga koy làq làq gi mooy nga yar ko yar goo xamante ne bu jotee bu génne ci pénc ba nekk doomu ñëpp te kooku c'est un modèle boo xamante ne ñun dañ ko war a yittewoo mhm. le modèle communautaire mhm. doom bu baaxee doomu ñëpp la mhm. waaye bu bonee ñu ne doomu am alima la comme bu baaxee doomu ñëpp la kon nit war naa sonn ndax bëri na ku ñuy taxaw këram parce que day wajuram dañoo def ci moom la nga xamante ne moo ca war ca waxtu bañ ko tete kon nañuy am temps di consacrer du temps à nos enfants di def si ñoom la sawar ba ëllëg ñoom itam ils vont nous rendre la monnaie moo tax peintre Baye Ñing Baye comment il s'appelle Moussa Tine mhm. day wax ne rien ne se mhm. tout se transforme mhm. donc comme rien ne se lu ñu def si si xale yi ëllëg ñoom dinañu ko delloo incha allah bu ko defee xëy na mbokku téléspectateurs yi loolu lañ leen indiloon ci seen émission Kër Sama tey bu ko defee xam naa ñu jox leen daje beneen yoon xam naa di remercier suñu sponsor ci li nga xamante ne gunge gëm ñu gunge ci émission bi bu ko defee xam naa ñu jox sunu invité mu jox le wax le dernier mot laataa ñuy delloo antenne bi. jërëjëf soxna Alima pour invitation bi mm-hmm. ak euh, euh, tënk yu am solo yi nga ni nga tënkee débat point yi nga joxe yëpp dañ am solo. Mm-hmm. Euh, xëy na man fu muy insister kese mooy situation femme enceinte mhm. euh, man nekk na situation boo xamante ne daf ma ça me pèse mhm. dans notre pays mhm. parce que mënuma comprendre euh, ñuy maltraiter les femmes enceintes dans les services hospitaliers dans les maternités ça pour man c'est c'est un crime. waaw mhm. il faut appeler un chat un chat. Mhm. man loolu je considère ça comme un crime. Mhm. parce que bu fekkente ne yow amuloo vocation. pour liggéey foofu. là tu n'as rien à faire il faut chercher un autre travail. mais buñ la booy liggéey dans les maternités. dafa la wóor wóor ni tu de la douceur. am nga yërmande. foofu yërmande lañ soxla si nit. ak bien sûr l'expertise technique. mais lu lu lu ëpp euh, gën a am solo expertise technique. mooy il faut nga nekk nit koo xamante ni nga yërmande si si doomu aadama am nga également yërmande ci mhm. ci ci ci femme enceinte mhm. Mhm. donc je souhaiterais que nos autorités mettent les investissements qu'il faut mënuloo investir ci xale tant que investir loo ci femme enceinte ce n'est pas possible donc waajal ñi nga xamante ne c'est les femmes enceintes de demain mooy les adolescentes et les jeunes filles par l'éducation la santé et la protection mais bien s'occuper également des femmes enceintes que mhm. elles, ce n'est pas normal qu'elles mhm. fassent la queue mhm. suñu mënee am un système d'allocation pour leur montrer ce que tu as dans ton ventre c'est important pour le pays qu'on mette en en en en en place ce système là pour mën a encourager les femmes a mhm. à bien s'occuper de mhm. leurs enfants mhm. et au final mënuñu laaj euh, njaboot yi ñu toppatoo seen doom yi tant que askan bi comme benn nit joxewul signal que ce que tu c'est important dëgg la dëgg bu ko defee xam naa message bi service yi dégg nañ ko donc moo xam yu état bi santé yooyu yëpp incha allah euh, bu ko defee rek xam naa comme ni ñu ko waxee émission bi sunu li ñuy mayoon ci temps jot na jeex bu ko defee xam naa ñu jox leen dig daju ba remercier fi nga xamante ne fa la ñu defee émission bi di mooy monsieur et madame Dieng incha allah fi Djily Mbaye xam naa merci chers téléspectateurs di gërëmaat encore une fois sunu sponsor BETS li nga xamante ne ñun ñu gungee ci biir émission bi wasalaam.